sant yàlla bi ñu nekkee sénégalais euh, rax si dolli di liggéey si presse bi ba mën a fekkee euh, ba su sëñ Touba bii nga xamante ne mën nañu jàpp ni dafay gën a sëggil diine lislaam askanu nit ku ñuul ñu waxee ko noonu waaye nag képp koo xamante ne rek yaa ngi bokk si njabootu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk si ñi nga xamante ne ñooy rafetal. diine diko dolal dooleel l'islam motax ñuy sant rek buñ fi nekkee di fi teew di liggéey ci tour RTS indi fi équipe bu 42 personnes ay techniciens ay journalistes ak euh, ñi gérer matériel bi ak ñeneen ak ñeneen euh, fexé rek ba RTS nga xam service public moko taxo tax mu mën a wone lépp lu jëm si mbiru magal gi si anam yu mu gën a rafete ñu wasaare ko fépp si àdduna moo tax su ma nekkee taalibe wala nekk journaliste fii si kër sëñ Touba dama si sant yàlla nag sant yàlla lool di rafet rafetlu tamit liggéeyu presse bi yëpp képp koo xam ne yaa ngi bokk si ñuy transmettre message yu lislaam message yu sëñ Touba Xaadimu Rasul nga xamante ne ñëpp xam nañu ni bokk nañ si ñu gën a taxawal diine l'islam fii si kaw suuf te loolu macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu bokkee si ñu fiy liggéey ak ñi fiy ñëw di ziar sëñ Mountakha Mbacké nga xamante ne tey jii mooy sëñ Touba si kaw suuf waaw. beneen euh, mbir tamit euh, bu la bëggoon laaj mooy euh, ba tey sànq yaa ngi koy évoqué bëri na ay organe de presse yu présent fii nii ci grand magal de Touba léegi yow naka nga gisee seen liggéey ak tey yii nii ban conseil ngay jox ngir ñu mën a gën a dérouler liggéey bi. xam nga diine lislaam moom dafa matal ay mbiram parce que yàlla bu mu mën bu mu nàmmee wax ak nit ñi.

il faut faire savoir plutôt que de savoir. Il faut faire savoir d'abord. Quand on sait, on fait savoir aux gens qui ne savent pas. Parce que l'ignorance est la pire des maladies. Et quand ils savent, ils vont comprendre ce que c'est que le message. Moi, je suis journaliste. Yonetide. Je suis journaliste. Iwali. Je suis journaliste. Iwali. Je suis à le message. Je suis message. Je suis à Je suis journaliste. Iwali. Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je suis à Je suis à Iwali. Je Je suis à Iwali. Je Je suis à Iwali. Je Je suis à Iwali parce que képp ku investir si média rek yaa ngi liggéeyal sa sa sa borom te ko waaw yaa ngi koy bu baax a baax maanaam yaa ngi wax foo xamante ne fu fu fu fu mil waroon wax yow kenn soo waxee ñu déglu la moo tax journaliste yi gàcce gaalama ñu gën a rafetal nekkin bi di koy gars yi cëral leen tamit jox leen wàllu bu ñu moom si mbir yi. merci beaucoup jaajëf waaw euh, maaleykum salaam. waaw ñu ngi lay euh, nuyu di la ziar euh, bu baax a baax dañoo bëggoon a xool rek euh, sa réaction ci màggal Touba bi. waaw soxna si maa ngi lay béggee di béggee seen waa ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan yëpp sama réaction ci màggal Touba comme chaque année ni ñu koy defee mbégte mbégte la ñuy àndal ndax ñun moom bu bu bu weeru safar teroo bu bu weeru safa teroo ba ba ba 18 safar gi ni nga xamne ci lañu deugmal yalla suñu borom dimbali bañu fekke ko talko ah, mu mu am jamm ju bari ami xewal wax deug yalla ñu contane dal ma Allah mi ngi feñ sa kanam sa <laughs> mbektem safar gi la yow mi di wax ak man sa mu ngi feñ sa kanam waaw non la dal mais li ñuy soñaat rek mbokk talibé moy ñu gëna gor gor lu wat euh, ci li nga xamne mom la serigne bi diglé Euh, moytu itam ay li nga xam ne moo di ay tereem te góorgóorlu ci suñu taalibe ñu góorgóorlu baax a suñu taalibe ndax ki fi nekk di sëriñ Mountakha Bachir euh, moom na fi yàgg si ànd ak wér moom mi fi nekk wane na yoon bi kon ñun nañu gën a góorgóorlu gën a dooni taalibe mais surtout suñu mbokk waa presse bi aussi ñu gën a góorgóorlu ci li ñuy wane ci li ñuy ci ci li nga xam ne euh, ay détails lay doon par rapport ak li bés bi laaj kon yàlla nañu yàlla may màggalub jàmm ah xéewalu jàmm seen site bi nga xam ne aussi yéen a koy doog a teg ci màggal gi yàlla na am ay succès succès succès yu bëree bëri. ki ànd ak léegi euh, nii suñu benn mbokk naataango euh, journaliste mu jógee fële ci TFM ziar naa la. delloo ziar bu baax soxna si di la nuyu. ngi lay bàyyi nga saafonteeg suñu mbokk internet yi tur bi. <laughs> Pape ñi ngi laa tudd maa ngi leen di nuyu mbokk internet yi di leen wax yéen waa. ak euh, Post Afrique di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajafal ci liggéey bu rafet bi ni nga ko waxee léegi la ñu génn ci jumaa ju mag ji lii benn yoon la ci at bi. kon nag occasion la woon ñu ñëwoon naam sax danoo nekk ci liggéey waaye ñëw ngir ñaan ngir ñaan suñuy soxla ñaan yi tey réew mi. tamit euh, jàmm rek daal di fi am loolu moo ñu fi woon ci nak nag ci contexte bu métti muy coronavirus di mbas mi te Serigne Touba xam nañ ne moom moo fi ñaan rek yàlla nangu ko ndax liggéeyal na boromam bind na ko bàyyi fi ay sëtam ak i doomam ñëpp wax nañ ko looloo waral tey ñu ñëw ci dëkk bu sell bi depuis dimanche nag ñu ngi fi nekk ci liggéey bi.